nu ma mais am na lu ma yàlla may. démb am na benn bailleur bu woote on peut dire un producteur pour def ci xaalis quoi bu ngeen bëggee yow ak Dayza ngeen baatal. Hmm. loo ci xalaat. bi nga ma wooyee wax ma ko lan laa la wax wax naa la d'accord naa ma ne la woo ko bi nga wooyee moom est-ce que jot nga ko. maa ngi ci démarche yi yàlla la si yàlla dimbale. baara lu bailleur bi teg ci xaalis man dama siy tegaat cinq millions. damay waxaat nga dégg. 5 millions déglu mu bu baax ma wax. ok damay teg 5 millions. Dayza teg 5 millions. mu tëju ak ay mbokkam liggéey son. 5 son pendant une semaine wala un mois bu leen neexee. man ma tëju liggéey 5 son pendant une semaine wala un mois bu ma neexee moom projet man projet. ok muy 10 millions ak li bailleur bi di teg ñu ñëw seen web ñu indi ay juri affaire bi dépassé na saagante gis nga Akhlou Brick mën nañ di ma clash chaque di ma leen di tontu chaque mardi ba ba yàlla di tukkil àdduna bi duñu noppi buñ noppiwul du ma noppi man du ma jeexal te ñoom it duñu jeexal parce que